moom mi ngi ci sam di ko liggéey nii moo fi am di nga gis koo xam ne plus de dix ans mënu la wax ne moom am na am na am na lu ko lu ko firnde ñu naan ay stagiaire pour lan stage stage man li ma xam ci stage boo defee plus de un an dootoo stagiaire tu es eh, euh, nu eh, kon nag ñun loolu lañ bëgg fu mu toll nii gouvernement ñu jël seen engagement ñëw wax ak ñun nañu ñëw jéem xool nu ñuy def embauché ndànk-ndànk ba ñu jeexal ñëpp waaw buñ ko mënul def nañu def ndànk-ndànk par vague par ba mu jeex mais depuis on a tout le temps des promesses à n'en plus finir yoo xam ne defuñu suñu kee taxaw nu mu tuddati ci Pape Diop amoon nañ ay promesses ñu ne dinañu jël ay ñenn ci Khalifa Sall même chose ba nii situation bi changé